yal na yàlla barkeel suñu dund ñoo ngi woon ci suratu baqara aaya téeméer ak ñett walaw annahum amanu wattaqaw la mathubatun min indillahi xayr law kaanu yaalamuun yaa ayyuha alladina amanu noonu la de baat boobu muy yaa ayyuha alladina amanu moom lañ tuddee annidaau rabbaani wala xitaabullahi lilmuminin ñëw na ci alquran moom yaa ayyuha alladina amanu juróom-ñett fukki yoon ak juróom-ñett ngeen note ko te nag ci la ñuy nag suñu bopp man mii di wax ak yéen bu ñu paree ba àgg minal jinnati wa naas wala boog ba jeexalee alladina amanu yi kenn ku nekk ñun mën ngaa fëgg sa dënn wala nga sëggal sa dox ndax saa bu ne yaayu la fi naa amanu woote nag ngir ne def leen nangam ku def ginnaaw rek bokkatu wala mu ne yaayu la fi naa amanu bu leen def nangam loola mu ne bu leen koy def ku koy def rek bokkatu ba muy juróom-ñett fukki yoon ak juróom-ñett ci alquranul karim te nag baatu yaa ayyuha alladina amanu teraanga la ju rëy nga bokk ci biir ñi yàlla yi woo benn waaye noonu na moom li ko neex rek ci yàlla mooy bu yàlla ne yaa ibaad yi su ko wóoree ne mi ngi ci biir yaa ibaad yi rek nee na mu affaire mbax su ko wóoree ne moom mi ngi ci biir yaa ibaad yi yow tam bu ñu ne yaa alladina amanu su nekk rajo bi dañ koy ubbee rek daal ni équipe nationale mi ngi woo diw bokk ci équipe sàngam musal mbubam dem fañ koy wooye xam na ne moom la ñu woo waaw diw bokk ci équipe sàngam rek musal am mbubam dem xam na ne moom la ñuy woo yàlla yi bu ne yàlla si na amanu ah am na ñu muy woo nar leen a jox mayo ñu fubaloon équipe nationale waaw sélectionné nag meilleurs joueurs yi mbokk yi mbir maa ngi noonu yàlla nee na yaa ayyuhal laziina aamanu ee yéen ñi gëm maa ngi bëgg a tere laa taqulu bu leen waxati raa'ina bu leen waxati raa'ina wa qulu dee leen wax unzurna ay ji li ko tax a wàcc mooy saxaaba yi dañ daan wax yàlla raay naa yàlla nag ñu sàmm waaye raay naa baatu yàlla nag ñu sàmm dafa am beneen baat buñ ciy déggee te aw saaga la bu ko saxaaba yi waxee yahud yi ree daal na ñii daal ñoo ñàkk teggin dëgg-dëgg yàlla ne bàyyi leen baat bi xam nga fi mu nekk boo ñëwee bawal boo ñëwee bawal am na baat boo xam ne boo ko fi waxee ab saalum saalum mu jël yat nga dem saalum wax fa baat boo xam ne bii dina tax ñu jël yat nga ñëw bawal te benn baat bee soo amee demee saalum buñ lay wax raxasul dañ lay wax raagul te boo ñëwee bawal koo ne raagul mu ne yaa ñàkk tegin dëgg rek raxasul la ñuy wax raxasul bu dee saalum kenn du wax raxasul raagul la ñuy wax te raagu mooy dem ca wan a wax sanguwaay ba noppi daal di raxas pour la ngay raxas loola mooy raagu benn baat la dégg li muy tekki fi li muy tekki fi waaw moo tax ngeen di nekk li waaja ñëwoon ca dëkk ba te bu waaj ñëwee naan ko kaay añ kaay lekk ne ko kii kana mu ne ko mana te mana mooy suur naa waaw kii kana mooy kaay lekk mu ne ko mana te mana mooy suur naa añ ñu lekk wacc ko waaw reer jot mu ñëw ne ko kii kana mu ne ko mana ñu reer wacc ko tey mu dee yàlla loolu lay wax fii mu ne yaa ayyuhallazina amanu laa taqulu bu leen waxati raa'ina te jublu ci sàmm ñu wa qulu na ngeen di wax léegi unzurna ba tey sàmm ñu bàyyi leen terme bi ñuy déggee saaga di wax terme boo xam ne kenn du ca dégg aw saaga wasmaaw te ngeen dégg nag da ngeen dégg lii ma leen di wax gars yi daal di koy bàyyi kon benn àttee ngoog yow loo jàng ci mooy gépp kaddu gooy yëkkati jëmaleetu ko ci yàlla mbaa ci yonent bi bu xawee ñàkk teggin teral ci suuf kenn du wax jabari yonent bi jabari yonent bi ak ba yonent bi dee ñu suul ko loolu kenn du ko wax alxuraan lu lay tere waaye naan jabar yonent bi ak illa illa day wala rek ñu kenn du ko wax da ngay wax soxna si yonent bi ak bu yonent bi génnee adduna wala ba mu nelawee mbaa ba mu wàcceb liggéey terme yooyu ngay wax am na solo lool loolu la alxuraan bi jàngale kon baat boo yëkkateeti rek mu nar a ñaaw rek seetal ndax wax dañ koy peese balaa génn ndax su ko see génn moomatoo ko da ngay fexe ba segg wax bi xam ba xam ñi ngay waxal ñan la est-ce que li dérange wul nit ñi est-ce que sénégalais ñi lay waxee nga waxee noona yaa ayyuhallazina amanu la taqulu raa'ina wa qulu unzurna wasma'u wa lil kaafiriin ñi wedd yàlla nag am nañu azabun aliim mbugal mu métti yàlla ñu càlla musal maa yawaddu du bëgg du bëgg mukk allazina kafaru ñi wedd yàlla min ahlil kitaabi te bokk ci tubaab yi wax naa la ne baqara ba léegi ca tàmbali ba ba léegi yàlla nga lay tekkil ihdina siraatal mustaqim siraatal lazina an'amta alayhim gayril maxdubi alayhim wala daalin ñaari baat lay tekkil gayril maxdubi alayhim wala daalin moom la yàlla lay tekki ba léegi ba baa ñuy am cent quarante huit aaya suuf rek lay tekki moo tax lu mu wax rek tubaab yi lay wax ahlul kitaab al yahudu wa nasaara mu ne maa yawaddu du bëgg alladina kafaru ñu weddi yàlla min ahlil kitaab te bokk ci ahlul kitaab wala al mushrikina jaamukata xërëm yëpp du ñu bëgg an yunazzala alaykum ñu wàccee ci yéen min xayrin ci wenn yiw yahudi buñ sañoon wenn yiw du wàcc ci yéen nasaraan yi buñ sañoon wenn yiw du wàcc ci yéen min rabbikum te jóge seen borom musiba rek lañ leen di bëggal ba bu ngeen amul musiba sax léegi-léeg ñu ñëw ne leen nee leen am nañ musiba ba ngeen ne am nañ musiba te amu leen musiba waaw comme ni ñuy waxee léegi économique bi crise bi nangam ak ci nangam fexe nañ ba ne ba ne am nañ crise ñun ñëpp ñu ne am nañ ko te di nelaw ñu naa yo planifié leen ñu naa ju waaw mooy loolu ñuy wax ne adduna si nit ñi dañoo ëpp ñun 7 millions la ñu kon kay ñun ëpp gu ñu nag wax dëgg yàlla di fi ak Thiès li fi mën a am ci ay kër diggante Thiès ak Tiwaawan li fi mën a nekk ci ay kër diggante ngaay meex ak Pout tabarkalla tabarkalla i fay wallahu te yàlla nag yaxtassu mooy jagleel man yashaaw ku ko neex bi rahmati ci yërmandem yàlla nañ ca boole wallahu ndaxte yàlla zul fadli mooy boroomu baax al azim mbaax bu rëy ga yàlla mooy boromam mbaax al azim mbaax bu rëy ga mbaaxam gee tax bi mu ne woor leen ñi woor ak ñi wóorut ñëpp buy joxe jox leen waaw tey jii ñi woor ak ñi wóorut ñëpp buy joxe ñëpp lay jox da ngay dem fekk mille francs ci poos ko wóorut fekk ko ci poos ko woor bu doon mbaaxu yàlla gi ku wóor doo am mille ndax boo ne mil càq mu ne da ngaa wóor waaw la la gëlëm nga defoon waaja am ñetti fan julliwut ñëw war gëlëm gi gëlëm gi lank te jóg mu dóor mu ne ko da ngaa ñàkk jom moo tax nga may dóor lu xew mu ne ko ñetti fan ni julli woo bëgg maa war mu indi ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw gëlëm nga ne ko mi ngi nii julliwut ñetti fan ba pare bëgg maa war jeex na yàlla sant la nga lànk bëgg sant jaamam yi ñu lànk ñu lànk tabarkàlla bilaay bi nga wax mu garaaw léeg-léeg nga takk sa montar xool xool mu lànk nga ne ko doo dox mu ne doxal yow dëkke nelaw bëgg may dox dëkke nelaw bëgg may dox daa boo tëddee fa la ngaa yeewu onze heures demi bëgg man may dox wallaay buñ doon wax ñu xam ñu ñëw ci àtte bi njëkk ci alquran ci masala fiq muy nasq nasq mooy benn aaya ñëw ñu ko jëfandikoo ba mu yàgg beneen aaya ñëw ne bàyyi leen ko jëfandikoo ma loi yi danañ koy def léeg-léeg tëral ko ci loi yi mais ba mu yàgg ñu ne loi sàngam article sàngam aliana sàngam mille neuf cent nangam nangam nangam léegi nangam nangam c'est clair wala leneen article bi ñuy werat nañ ko dindi mu ngo ca la bokk loolu daa am ci alxuraan Aliou day wax ne képp ku xamul naasix ak mansuux boo waxee ci alxuraan ba ma la fekkee duma la waaw mu ne képp ku xamewul naasix ak mansuux boo waxee ci alxuraan boo la fekkee duma la naasix kon mooy luñ doon jëfandikoo mu yàgg mu dañ lu mel ni bu njëkk ku ma sa njaaloo soo dee góor dañuy woo gaa yi ñu ñëw di la taf li di la dóor ay dàll di la xaf bu dee jigéen dañ koy tëj ci néeg ba mu dee waaw ba mu yàgg nag léegi ñu bàyyi loola di wax léegi ku góor ku jigéen bu njaaloo te téeméer ya léegi lu la dañ na loolu mooy nafq yàlla nee na maa nan sax lépp loo xam ne dañ koo xasaf dañ koo far min aayatin cib aaya ab loi aw nunsiha wala ñu fàtte ko maanaam ñu gannaawal ko naati dana ñu indi bi xayrin ci beneen loi bu gën min haa ci biñ fi jëlee aw mislaha wala boog ma mel ni moom ci baaxaay waaw bu ma leen dindil daal ba may indi day mel ni moom mbaa mu gën ko rek waaye du ma indi bu yées alxuraan dina ko def morom ja hadis dina ko def alxuraan waaw hadis dina fekk alxuraan mu nasaxal ko xam ngeen bi yàlla lay wax ñi araama takk nee na kenn du boole ñaari sóor yu bokk ndey ak bàyyi waaye fa la yem yonent bi moo ñëw ne kenn du boole it jigéen ak tàntaam wala bàjjanam pouvoir boobu sunna am na ko ci biir alquran mu ngoog alam taalam xanaa xamoo ne anna allaha yàlla ala kulli cheyin qadir lépp la man xanaa xamoo ne yàlla ala kulli cheyin qadir lépp la man orientaliste ba daan ne yàlla de am na lu mënut ñu ne ko lu mënut mu ne rey gi leen jaaxaanal ko yàlla da koo jomb waaye lépp la man bu yàlla jaaxaanalee gileem lan la koy jariñ amul sens yàlla lépp la man mais da ko jomb yim jomb nag da ngay yaakaar ne da koo tële waaye amul lum tële léegi la ñu naan suñu Abdul Xaadir Jilaan daana ko wax mukk daawu ko wax ñu ne mu naan yàlla man am naa loo amul man naa loo mënul loolu déedéet nit ñi ñoo koy wax borom xam-xam bu toll ci niveau boobu ñoom ragal gi ñuy ragal yàlla bokkut ak ñun ñu ne danaan yàlla am naa loo amul ndax am naa yaay ci amoo ko déedéet ñoo ñu ragal gi ñuy ragal yàlla duñu wax loolu mukk alam taalam xanaa xamoo ne anna allaha yàlla lahu mulku samawaati moomam nguuru asamaan wal ardi moomam nguuru suuf moomam nguuru asamaan kon mooy buuru buur yi ah wal ardi moom it suuf mooy buur ci asamaan di buur ci suuf waaw yàlla koy xëccool asamaan ak suuf mu ne ñi xamul maay kan ñi xamul maay kan ñun lay xëccool yéen a ngi nii oto bu fi jaar ngeen bind ci wet ga moo ruxu jaafa moom koy xëccool waaw oto bu fi jaar rek ñu bind ci wet ga moo ruxu jaa ko moom bu ko moo ruxu jël moom mais baa paatee ko moom yàlla mu ne ni ngeen amee sañ-sañu li ngeen moom ngeen bind ci seen tur man tam noonu laa amee sañ-sañu asamaan sii ma moom ma bind ci sama tur sama adresse waaw tabarkàlla carte Moustapha Gris maam sama turu ciy nekk lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum amu leen nag min dunillahi ku dul yàlla min waliyin ci kilifa wala nasir amu leen ku leen di dimbale kilifteef gi leen yàlla yilif amu leen ku leen yilife noonu moo tax bu la sa kilifa yónnee bu la yàlla soxlaa da lay jël fa mu la yónnee ndax mooy sa kilifa di kilifa ak sa kilifa allahu akbar keneen ku dul yàlla mën nañoo yónnee ci yow nga dëkk ñu ne dañuy day réunion wala dafa amul jot wala daa dem barab sàngam waaye yàlla bu yónnee miikaayil ba mu lay jël si foo nekk fan lay fekk am turidoona wala boog da ngeen a bëgg an tasaloo ngeen di laaj rasulakum seen yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam kama suila Moussa lañ laajoon Moussa min qabl bu njëkk ndax da ngeen a bëgg a laaj seen yonent bi lañ laajoon Moussa yàlla mu ne gëmal gu leen ma ba léegi ah da ngeen a bëgg a laaj yonent bi lañ laajoon Moussa na ko wan ñu yàlla ñu xool wa man yatabaddalil kufra ku weccax ndi ko weddi yàlla bil iman ci gëm faqad dalla sànku na faqad dalla sànku na sawa a sabil digg yoon wa teggi na yoon wa fam jaar baaxut waaw ku fi weddi yàlla fii boo ko jàngee da ngay dégg ne nekke nit du judduwaale bi weddi yàlla qad dalil kufra bil iman soo ko jàngee da ngay dégg ne nit du judduwaale ak weddi yàlla nit gëm yàlla lay judduwaale kullu mawludin yuladu alal fitra ak weddi yàlla day dabe rek feebar la waaw yàlla ñu jàll musal moo tax faj ko moo gënoon faj faj sida waaw def ci millions yu bari pour virus bi dañ virus bu kufur lay def wadda bëggoon na su ko mën naam kasiirun ñu bari min ahlil kitaab yi ci yahud ak nasaraan tubaab bi law yarudduunakum law yarudduunakum ciy buñ leen mënoon a delloo min baadi imaanikum ginnaaw ba ngeen gëmee yàlla kuffaaran ngeen nekkaat ay yéefar ciy buñ ko mënoon wadda kathiirun min ahlil kitaab law yarudduunakum ciy buñ leen mënoon a delloo jaral na leen fay xaalis jaral na leen neexal leen jaral na leen paas ñëw ci yéen jaral na leen ñëw ba ci yéen jël seenu tur jaral na leen jàng seenu làkk ba mën ko di leen jàngal ca làkk woowee nga xam ne moom yenn na xasadan añaan dong nag ñu indi anfusihim gu jóge seen bopp ndax baaxuñu bëgguñu ko baax dong waaw añaan rek li leen dal daal bu ñu xëyee mu dal ñëpp waaw la gumba ko defoon morom ja dugal loxo ci biir bitig bi sàcc ci miskin bi borom bitig ba ne niit loxo ba ne ko tappit dagg ko bàyyi ko kuuñ ba fekk mi nga ànd ak moromam gumbaam mu ne ko Suleymaan mu ne mu ne ko ah miskin mi tey daa dëgër làmbal Suleymaan ne bu xuuñ loxoom waaji na ca niij fas ko yéene dagg te paaka ba ñëwul xiiti xiiti mu sax mu ne ko ah galaay affaire bi métti na de mu teg ko loxoom ne ko nii ne ko balaa ba mu mel nii de ci moo añaan ci moo añaan waaye añaanam googu la yàlla wax ne moo nekk ci ahlul kitab amuñu diine buñ sañoon du ngeen ko am yëpp moo tax seen moo tëral seen programme fexe ba gonu jigéen yëpp ndeysaan nekki nekki nekki ay njuuma seen gémmi yi dañ koy diwoo diwoo diwoo ba mu xonq tur rëdd seen bëri yi rëdd fii ñoddi ba far mel ni njuuma parce que ni yàlla bind nit dafa rafet boo ko bëggee soppi rek ñaaw xoolal xale jigéen bu tawaale rek ba génn kawar gu mel ni kawaru jinne wéyu mel ni wéyu jinne nga pentiir sa kanam ba pare nag sol luñ xar kenn dootul jàmm wax nga dëgg ba pare sol luñ xar loo doon miskin law yaruddukum min baadi imanikum kuffaaran xasadan min indi anfusihim min baadi ma tabayyana ginnaaw ba mu leere lahum ci ñoom alxaq dëgg faafu baaleel wasfahu jëllaleen hatta yaati allahu ba yàlla indi bi amrihi ci ndigal la nga jihaad su boobaa nga jóg jihaad leen allahu akbar bul jihaad ñu lay tooñ ñu lay agressé waaye bul jihaad inna allaha yàlla ala kulli shay'in qadir lépp la man booba gaa yaa nga madi makka di defaru waaw alquran di wàcc di wax ñoom bu ñu xeexoon badar keroog du baax yàlla mu ne faafu wasfahu bu la xeexagum gaa yi defaru rek ba ñëw madina nekk fa ay weer di war seeni fas di jaabal di gaa seeni jaasi léegi-léegi yëfar yi xool leen ne ñii seen fas yi ñii de ku leen dugg ci ñoom du baax te arab saxaaba yi di leen màttu léeg-léeg nga fekk benn yëfar tafli ko waaw ashiddaau alal kuffaar ruhamaau baynahum tiitaange loola moo jàpp gaa yi ba badar ñu duma leen te yëguñu ko moo tax jullit dañoo bëgg fu mu toll ku ko xool di nekk ku wedd yàlla ci day am sikkim bu nu lool mustaas yi ñëw mu wàññi ko nga jox ñoom yi def ko bëtul waaw te dañ ñang waaw jii day kenn nga boole som kenn du la song gisoo mbër mu nekk ci làmb ji bu songul kenn xanaa jàmbur rek na këj kenn du ko ñeme ci bëri mbër mu bëreegul dañ ñàng nen kii dal saway su waaye bu bëree ñaar yoon nga ñu daanal ko daanal ko cëm léegi mbër mu ñëwati na ko la tax yeeg fokk yeeg waaw yàlla dafa bëgg jullit fi dëgër asidaw al kufaar rohamaaw baynahum saaba yi baal leen ndeysaan ay dana ñëw ci kanam nag ne leen jóg leen wa aqimu taxawal leen asalaata julli ña ngay defaru di leen julli rek bu leen fàtte benn waxtu ku bëgg a defar sa jukko defar saw fit wa aqimu salaata rek wa aatu zakaata di leen jox asaka it wa maa tuqaddimu lu ngeen jiital nag ci seen bàmmeel li anfusikum ngir seen bopp min xayrin ci lu baax su ngeen demee tajiduhu da ngeen ko fekk inda lay fa yàlla tabarkàlla moo tax fi nekk tàmbalee wàccal sa bopp ay kaamil moo gën faatu sa bàjjan wàcceel la ginnaaw yàlla neen lu ngeen def fekk ko fa waaye tàmbali léegi di ijjëk a boole wala ngaa dee am ñetti kaamil wala juróom moo gën nga dee sa bàjjan wàcceel la woowaa koñ bi ne wàcceel leen ko te moom xamu ci dara wàcceel nañ ko de waaye dóor piliyaan bu kowe toog ne wàcce leen ma kaamil rey xar togg ay laax taal malboro xaj bi ne ci wetam amaguñu amaguñu vingt minutes mu ne parewu leen ñu ne non mu ne waaw ma ne gars yi nañ pare nañ pare parce que kii ñun wàcc kaamil bi est-ce que duñ ci am bakkaar ñu daal di bàyyi ba kii rek daal di booyee kaamil bi ndànk ñu ne ko pare nañ mu ne bien c'est bien ah mais yéen affaire bi yomb la ah daal di génn soixante mille jox ñu ma ne ah waaye xool boobu kaamil ak kaamil yi nga xam ne moo xew léegi benn waay gaañu ñu daje fa séddoo ko kenn ku nekk mun mun rek ñu dajale waat wa jàng leen kaamil bala ngeen faatu man de boobu ma gënal wa ma tuqaddimu lu ngeen jiital li anfusikum ngir seen bopp min xayrin ci lu baax lu mën a doon tajiduhu da ngeen ko fekk loolee inda laahi fa yàlla inna allaha yàlla bima taamaluna lépp lu ngeen def basiir ko ko gis la xam na ko te mën na koo denc foo xam ne si du yàqu allahu akbar yàlla rek a yàlla waxaalu yàlla noppeegul ci yow di ba léegi de waxaaloo yahudi nee nañ lan yadxula du dugg mukk mukk aljannata aljanna illa man kaana huudan lu dul ku nekk ab yahud aw nasaara wala ab nasaraan moom kay yahud ngay nekk maa nasaraan mbaa du dugg aljanna ñoom lu lañ wax waaye mu nga te ñoom aljanna yàlla mu ne tilka loolu ñu wax amaaniyuhum mooy seen mébét loolu lañ bëgg waaye xul nee leen haatoo burhanakum indi leen seen tegtal indi leen seen tegtal in kuntum saadiqina bu fakkee bu fekkee wax ngeen dëgg nekkul nekkul yahud du dugg aljanna fan ngeen ko teg wax leen ko balaa aha kay dana dugg aljanna de man aslama képp ku jébbal wajhahu jëmmam lillahi ngir yàlla ku jébbal jëmmam yàlla wa huwa teg ca moom muhsinun fu mu tali def la rafet fa lahu dana am ajruhu ak payam inda rabbihi fa boromam wala xawfun alayhim ñooñu duñu tiit wala hum yaxzanuuna duñu ragal dara yàlla njàlla boole ci ñooñu wa qaalat al-yahud yahud yi nee nañ laysat an-nasara ala shay'in nasaraan yi nekkuñ ci tus wa qaalat an-nasara nasaraan yi nee nañ laysat al-yahudu ala shay'in yahud yi ñëw nekkul ci tus yonent bi nee nañ yow ñëpp a wax dëgg ak comme xamante ne kenn ku ne xam na sama ba pare nga ne moor ko ji muy nekkul ci tus moor ko ji ne yooyu paate nekkul ci tus ñoom ñaar ñëpp kenn nekkul ci tus sallallahu alayhi wa sallam wallaay ndeysaan wa qaalat al yahudi yahud yi nee ne laysat nasara nasaraan yi nekkuñ ala cheyin ci tus wa qaalat nasara nasaraan yi ne laysat al yahudu ala cheyin yahud yi nekkul ci tus kon kenn nekkul ci tus ci ñoom ñaar loolu nag wàll nañ ko lislaam léegi wàll nañ ko lislaam ku ne ci tarixa ku ci nekkul nga ne nekkul ci tus ku nekk ci ak ibaadu ku ci nekkul nga ne nekkul ci tus ci biir ibaadu yi ku ne ci association ku ci nekkul nga ne nekkul ci tus su boobaa ñun ñëpp ci nekkul ci tus jeex tàkk mu jeex tàkk bu ko nee na sama morom nekkoo ci dus mooy kon kenn nekkoo ci dus rek loolu war ñoo dal ñun ñun dañoo war a gëm ni nit war naa baax te du nekk ci li nga nekk ndax lislaam a yaatu mooy tool bi dëkk bi ku nekk sa kër ku nekk sa kër lislaam it garab la leneen lu ci nekk rek ay car la wala ay xob car yooyu ci lislaam lañ sax muy dattu garab bi boo toogee ca car nag naan eh yéen seen car baaxu daa bii moo sedd da ngay wax rek garab gee kon ñun lu ñu war a dégg mbir yi ñëpp a ngi ci tus waaye bu ko ñëwee kenn ku ne sama ram nekkul ci tus su boobaa ñun ñëpp ak kenn nekkul ci tus te kon àdduna tukki loolu bu ñu ko nangu mooy dugg ci ñun nañu gëm ne lii dal al yahudu wa nasaara ñun waru ñoo dal ñàkk a bokk fu ñu nekk teewut a baax ku ne ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah baax nga ku ko wax rek baax nga ku ko wax rek baax nga moo tax ba saaba yi seen waaja mu si leen ne eh assalaamu aleykum ñu ne ko jorul salaamu aleykum yéefar bi nga doon daal di corbaat ba ñu wax ko yonent bi mu leen waaye